gars yi salaamaaleykum gars yi dama nekk di watu nii sama bopp bi bu leen ci bàyyi xel mais li ma leen bëgg a wax bu ma leen ko wax mooy bàyyi leen xel ci li may wax ndax moo gën a am importance mii dafa jël réseaux sociaux yi lekk ko mel ne journaliste moom du journaliste a la wala boog malade bi da koo bëgg a jël def ko bës nan la mën a génnee def ay vidéo nan ay daaru salaam ak màggal gi ñu ngi wooteeg ñëpp yaakaar ne dafa wér te wérul wéroo wéroo bu ñëpp yaakaar ne wér nga tamit wéroo toogal nga noppalu sa lii nii dañ laa faj mais du bës Wally ko laaj 15 millions mu may la ko da doon ñaan dimbal may la 15 millions nga war a faju dem hôpital jël 15 millions yu dóor ko xaas xaas sangee la ko ay reen ak ay sunguf ba xamoo fooy taxaw génn def fi vidéo sa waay xam nga dëkk bi dañ mi ngi ni instant bi dañ ko war a évacuer feneen lañ ko war a yóbbu wéroo ba pare bëgg réseaux sociaux bëgg siiw da nga war a toog waroo di def woo bu kenn da nga feebar malade nga dañ lay dimbali wërëgoo Sénégal gépp yaakaar nañ du wér ga te wéroo fa ku la ko waxul da lay nax bàyyi réseaux sociaux yi salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi dama nekk di watu nii sama bopp bi bu leen ci bàyyi xel mais li ma leen bëgg a wax bu ma leen ko wax mooy bàyyi leen xel ci li may ndax moo gën a importance Fambaye mii dafa jël réseaux sociaux yi lekk ko mel na journaliste moom du journaliste mënal la wala boog malade bi da koo bëgg a jël def ko bës nan la mën a génnee def ay vidéo nan ay daaru salaam ak màggal gi ñu ngi wooteeg ñëpp yaakaar ne dafa wér te wérul wéroo wéroo bu ñëpp yaakaar ne wér nga tamit wéroo toogal nga noppalu sa lii nii dañ laa faj mais du bës Wally Seck ko laaj 15 millions mu may la ko da doon ñaan dimbal bu may la 15 millions nga war a faju dem hôpital jël 15 millions yu dóor ko xaas xaas sangee la ko ay reen ak ay sunguf ba xamoo fooy taxaw génn di def yi vidéo sa waay xam nga dëkk bi te mi ngi ni instant bi dañ ko war a évacuer feneen lañ ko war a yóbbu wéroo ba pare bëgg réseaux sociaux bëgg siiw da nga war a toog waroo di ne woo bu kenn da nga feebar malade nga dañ lay dimbali wërëgoo Sénégal gépp yaakaar nañ du wér nga te wéroo Fambaye ku la ko waxul dalay nax bàyyi réseaux sociaux yi salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars dama nekk di watu nii sama bopp bi bu leen ci bàyyi xel mais li ma leen bëgg a wax bu ma leen ko wax mooy bàyyi leen xel ci li may wax ndax moo gën a am importance Fambaye mii dafa jël réseaux sociaux yi lekk ko mel ne journaliste moom du journaliste manal la wala boog malade bi da koo bëgg a jël def ko bës nan la mën a génne def ay vidéo nan ay daaru salaam ak màggal gi ñu ngi wooteeg ñëpp yaakaar ne dafa wér te wérul wéroo wéroo bu ñëpp yaakaar ne wér nga tamit wéroo toogal nga noppalu sa lii nii dañ laa faj mais du bës Wally Seck ko laaj 15 millions mu may la ko da doon ñaan dimbal mu may la 15 millions nga war a faju dem hôpital jël 15 millions yu dóor ko xaas xaas sangee ko ay reen ak ay sunguf ba ko moo fooy taxaw génn di def vidéo sa waay xam nga dëkk bi te mi ngi ni instant dañ ko war a évacuer feneen lañ ko war a yóbbu wéroo ba pare bëgg réseaux sociaux bëgg siiw da nga war a toog waroo di def woo bu kenn da nga feebar malade nga dañ lay dimbali wërëgoo Sénégal gépp yaakaar nañ du wér ga te wéroo Fambaye ku la ko waxul da lay nax bàyyi réseaux sociaux yi